juróom ci Dakar Plateau ñeent ci Yoff ñett ci Mariste Sacré-Cœur Pikine Wokam Kër Massar ak Guédiawaye ñaar ci Rufisque Ouest Ngor Mamel HLM Grand Yoff benn ci Liberté 1 Zac Mbao Yarax Sicap Baobab Point E Parcelles Assainies noor Foire ñaari tali Médina Kër Mbay Fall Gibraltar Jëppal Derklé Cité Mixta Cité CPI Liberté 4 Amo 4 et Liberté 6 ci yeneen région yi am nañ ci téeméer ak benn seen lim ni la tëddee ñaar fukk ci Thiès fukk ak benn ci Mbour fukk ci Tivaouane juróom-ñaar ci Kédougou ñeent ci Richard ak Kolda ñett ci Ziguinchor Touba Mboro Xombol Kaolack ak Fatick ñaar ci Yëmbal Tambacounda Sokone Salemata Ndofane Koungheul Joal ak Guinguinéo benn ci Cajaay Salemata Saréya Sangalkam Koki Kébémer Diourbel Jaxaw Daaru Musti Bambilor ak Bambey ñaar ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett si malaat yi ñu entré woon ci hôpital yi walla ñi nga xam ne ñu leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bës ni ki tey dinañu génn ci bu ci yàlla àndee juróom fukk ak ñett malaat ñoo nekk réanimation juróom ñett malaat ñoo génn àdduna postu démb ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk bu kaa njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñaar ak juróom benn téeméer ak fanweer ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom benn ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar wér nañ ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci lalu hôpital yi wala malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñooñu ñu des ci lalu hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et sociale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 ñàkk yi dina tàmbali ci réew mi képp ki nga xam ne dañ la ko jagleel nanga nga fexe ba jot ñàkk yi ni mu waree ministère la santé et l'action sociale mu leen di sant di leen gërëm